ma owoon suba boo ma owoon suba 8 ma ñëw nekk ak fii ba minuit pare pare naa ci loolu parce que am naa naqar tey mën a ñëw tey fu 4 heures ba 4 heures 4 heures ba tey ma toog fii di xaar pour rek débattre ak yéen discuter ak yéen am occasion wan la li ñu def parce que boo fekkee ne da ngaa bande sa bët yi ma dindi bande bi nga gis nga gis loolu moo ci am solo maintenant nag maintenant nag tooñ nga ma tooñ nga ma lu nga xam ne ñoo ko bokk parce que tooñ nga ma ci affaire bi mais man su ma paree su liggéey comme yow fo paré sa liguey sa liguey yi ngay def à gauche à droite té nga nek député té nga té nga nek te nga nek député man suma paré suma liguey mais dafa am ñu nga xamni buñ paré sen liguey dañuy tok ci bar ya am na buñ paré sen liguey ñu ngi ci lenen man suma paré suma liguey ma ngi ci football ba suma paré suma liguey ma nak loolu mom loolu lu bari lu bari lu bari té nak nag sëñ Cheikh Abdou fi ci rew mi lañu bok li ma li may wax ci biti si sama liggéey bokkul ak li ma wax tey ci assemblée nationale mais